sëñ Abdou Fall moom sëñ Mawone Wane Benda moom Cheikh Adama Fall maa ngi leen di xamal ni Amadou Seck maa ko yóbbal ci nit ñi de ne képp ku mu wax dara maa ko wax kenn waxal ma ko wax sama bopp Amadou Seck lu mu def maa ko def loo bu ci kenn tey benn baat lu fay mën na ko bi def. alhamdulilah rabbil alamin bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp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 loolu nag xam nga sëriñ bi xam pastéefam ak yitteem akuk dogoom ak ak ak ak ak ak ak yitte ju mu am si liggéeyal maam Cheikh Rafaal lu ko Cheikh Rafaal jaral loolaa tax sëriñ bi eh, sant ko ba noppi joxaat ko ndigal loolu mooy yoon yi moom amul noppalu eh, dallu rek waaye dallu ba diir bu gàtt la ndax li nu jaayanteeg sëriñ bi eh, ni ko sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng waxee rek noppalu amu fi xaju fi.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 te di siyaare ñëpp nag te di woowaat ñëpp nag si liggéey bii nga xam ne mooy moom la ñu dëgmal mooy liggéey tabaski yi